mu woo ma saaga ma. mu woo la la saaga. woo ma saaga ma. commencé rek dégg naa si Ahmed Cissé daf laa woo téléphone. waa jërëjëf général kooku bëgguma di tudd turam ndax tur wi day tur wu sell. mais daf la woo téléphone. sant wi itam nit ñi xam ko. Mhm. moo tax AC rek doy na. Mhm. di koo xam ne ak caay-caayam. Mhm. wan na yàgg naa ko wane yàgg naa leen ko bëgg a wax. waaye day mel ne Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni day mel ne ñi xamul. daa ëpp ñu xam. ba tax na kuy wax lu dul xam-xam sax. Mhm. ñu foog ne xam-xam lay wax. Mhm. bi mu commencé rek. Mhm. ca fa mu bokk di Medina Baye. attaqué fa ay kilifa ñu duma ko fa duma yu métti. mu ñëw commencé di wax ci diine ji mu mel ne nit ñi dañ koy bàyyi xel. ma gis image yoo xam ne de def na ko ma génn di ci wax mu woo ma saaga ma. mu woo dina saaga. woo ma saaga ma ne ma dinaa la pelante naa la tëj. moom Cheikh Ahmed Cissé. ma ne ko waxoo dëgg yow laay tëj. Mhm. donte sax te tëj ga nekkul luñ ko yéenee waaye am na ñoo xam ne kenn du leen attaqué. kenn du leen attaqué kenn du attaqué. moom lan nga defoon ak lan ngeen jotee ba mu saaga la wala saaga la. waaw xam nga diine ji dañoo jaral lu ne. Mhm. gis nga li mujjee wax ci alxuraan wallaahi lancé dañ cee jooy ba sonn. Mhm. lu nu gën a méttee loolu amut. ndax lu toll ne alxuraan nga ne li ci ëpp ay gént la. mooy dàq nga dàq nga mboolem lu baax lu fi nekkoon. ndax xam nga ne alxuraan mooy lépp. alxuraan mooy lépp. en tant que Serigne euh, surtout Serigne Fallou Mbacké mu woo téléphone saaga la lan la lan mooy problème bi ba mu ñemee jël téléphone bi la woo. waaw bokk na ci di wax ci diine ba pare ñu koy gis muy def yeneen hmm. ndax gis nañ ab image boo xam ne mu ngi ci biir oto bi moom ak ku jigéen di defan defanteeg moom loo xam ne publiquement baaxut. Hmm. di di xotti worma itam euh, mag ñu baax ñi. seeni wax yu yu am solo ak yu am teggin yañ daan wax. Hmm. mu ñëw ci. public bi mel na kuy kuy wax xale yi ne leen yar ak teggin mm-hmm. amatu solo mbir mu ci nekk nañ ko waxee nan ko xamee mm-hmm. ma génn def sorte wax moom indi ko lu baree baree bare jox ko ci ay exemple yu yaatoo yaatu mm-hmm. teg ko ci diine ak ci xam-xam mu génn saaga ma woo ma téléphone ne ma gis naa sa vidéo dinaa la pelante naa la tëj waaye nag yaakaar naa ne moom moo mujj tëjulu moo mujj tëju waaye alhamdulilah rabbil alamin ne ba ëpp ci senegal yi ginnee koo ci moom Mhm. ndax teel naa wax ne leen kii du borom xam-xam mhm. ndax général xam-xam du du ay werante mhm. xam-xam du werante yu bare baree bari kenn wax dara nga gaaw génn ne ko li nga wax du xam-xam loolu du xam-xam général xam-xam fal xilmu laa bi kasratin riwaaya waaye bal innahu nurun maha diraaya